asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi sant yàlla bu baax ci anam ya mu gën a yelle mu gën mate tey julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci anam gën di feddali sunu jaayante ci Seexuna Seex Ahmadul Xadim tey siyaara bu baax Seex Ahmadul Muntaxa tey ñaan sunu borom yàggal ko fi loolu defal ko wér ba li mu yéenee liggéey ci lislaam ci toolu sëriñ bi lépp mu àggale ko te ñu ànd ko moom di am mbégte bu baax ci teewaat ci barab bii nga xam ne nii mooy symbole bi gën a mag ci lislaam fii ci fii ci Sénégal wala fii ci tuubaa di li gën a symbole bi gën a mag tamit ci yoonu murit yaakaar naa jëfi doomu murit boo gis rek bu sañoon bokk ci ñi nga xam ne ñooy feeñal jëfam fii ci barab bi te jii nag Touba ci kanam ñëwoon fi ci turu kilifa yi Touba ci kanam yépp tàmbalee ko ci suñu Abibulahi Mbàkke mu Cheikh Amadou Fadal ak mboolem waa waa kuréel gi yépp waaye nag seen bànqaas bi nga xam ne ñoo yor wàllu jàppalante muy al infaq fi sabilillah muy commission bi ñuy wax sociale mu doon ab jaayante boo xam ne bokkut ak ñaar téeméer yi nga xam ne ni moom la bokki taalibe yi di baaxoo barkeeloo ci ci Touba ci kanam nga xam ne li ëpp ci infrastructure yi nekk ci dëkk bi nga xam ne ni ay coobareew ay taalibe ñoo ko fi def def na ci lu bëree bëri kaddu yi tamit comme ni ma leen ko waxee woon rek daanaka jëru ko woon loo war a def moom dañuy wax ne la sukkur al waajib li la war nga def ko daanaka jëruñu lañuy sant te barab bii moom lu ñu fi def war nañoo def lu ko ëpp fuuf ndax sunu yaakaar yi tey ëllëg fi la nekk muy Cheikh naa Cheikh Ahmadul Xadim waaye li tax ñu ñu ci yëkkati kàddu rek ginnaaw bu ngeen ko sàkkoo mooy ñun li ñuy def muy commission bi ñu yor muy sociale ba muy door benn liggéey lañ amoon muy nañ farewoo jumaa ji liñ daan jaayante lépp weer wu nekk ku nekk am loo génne liñ ciy def mooy nañ ci nañ ko yóbbu jumaa ja fexe ba di barkeelu ca ña nga xam ne ñooy jàng kaamili sëriñ bi ak ñi nga xam ne ñoo fay nodd ak ñi nga xam ne ñoo fay jiite loolu rek moo doonoon liggéeyu liggéeyu commission bi waaye di barkeelu bu mbirum sëriñ bi barkeel nga xam ne sëriñ moo dénkaane woon ne jumaa ji ku ci feeñ dootoo nëbb ba mukk ñun ñun mën nañoo seere loola donte ñëpp mën nañ koo seere waaye ñun am nañ ci firnde ju wóor ndax lii ñuy def ban koy tàmbali jumaa ji rek moo taxoon mu jug waaye gis ngeen tawfeex ji ñu fi yàlla defal dem na ba li ëpp ci dëkk bi ku jaaxle commission sociale la sa xel di dem gis ngeen liñ séddale ci dëkk bi yëpp mu ngi ba mi ngi mi ngi jugee ci barkeel gu jëf gi ni jëf fii barkeel lii ñu indi fii tamit bari na barab yu ñu ko yóbbu loolu lépp tamit barkeel gu fii barkeel moo tax bu njëkk benn daari kaamil rek lañ daan yem mu ji jumaa ji léegi dem nañ ba jàll daarul muxti daarul xuddoos kasiñu sony bu daaru minan Daaru Salaam Mbàkke Xewar ba Njaareem te loolu lépp barkeel gu fii barkeel moo moo moo ko waral kon nag ñu ngi leen di sant bu baax ci taxawaay bii nga xam ne nii moom ngeen di def di nuyu suñu affaire bi nga xam ne moo jiitee kuréel gii mu doon kuréel goo xam ne tey murid yëpp ci waroon a nekk waaye nag li fardu kifaaya la isaa xaama biha albaxdu saqatan xanil baaxiin moo waral rek ñu nekkal leen fële ngeen nekkal ñu fii te mu doon tamit barab bi nga xam ne nii ci ñaanuk sëriñ bi man la bu foo seen yi nga xam ne Tuubaa kanam moom lay doxee liggéey bii ngeen def da caa nekk bu yàggul rek am na jàngoro ju fi nekkoon yoo xam ne nii moom la ñuy wax Covid 19 muy corona yaakaar naa barab yu bëree bëri tëjoon nañ dawuñu fa julli waaye fii ñaan gi fi sëriñ bi ñaanoon firnde firnde wu na wala tos bi daan fii jamaahatan tuqiim asalawaatil xamsa dahaban yaa hakim diirub corona bi doon daan nañ julli ajjuma di julli waxtu juróom yëpp. julli googa nag bu awee ci yoon tegee ca nañ war a tege sàpp yi lépp normal seen taxawaay la yéen ñii. kon day mel ne war tudd xilal muslaha fii yadi wa fii daari wa sabitanhu bil haadil wa fii googu sëñ bi waxoon yéen waa muxaddamatu xidma yéen a ngi cee bay làcc bu rëy rëy rëy ak mboolem dawaayir yi nga xam ne moom ngeen di àndal ñuy saytu xurumi jumaa ji ak set gi nga xam ne moo ko wër kon loolu rek moo waraloon suñuy tànk tey bëgg a dolli kuwaat ndax ndax euh, gis nañ bu baax jëf ji niy jëf fii njariñ lim ñu jural ci saayir ak ci baatin njariñ loo xam ne xam nañ ko ak njariñ li nga xam ne sëñ bi tax ñu koy jëf rek moo moo moo moo ko xam moo waral tamit ñu feddaliwaat jéego yi ñuy feddaliwaat di ñaan tamit ngeen ñaanal ñu suñu sañoon mboolem kuy nekk jumaa ji moo xam loo fi mën a def ñi fiy liggéeyee ñëpp buñ sañoon ñun ñii ñoo leen di jël en charge la war ci seeni kër yëpp ñu di ko def waaye li indi lii ndax lii jàppoon nañ ne weeru wu dee dong duñ mën a indi ci jumaa jàppoon nañ ko te dem nañ ba lii ñuy def lépp ñu mën koo def ba léegi tamit commission bi heure bu dajalee dara par weer lam ciy njëkk a def mooy li muy génne jëm ci jumaa ji lay njëkk def la ca des nag ci lay faj nit ñi ak yeneen yi muy def yëpp ci la topp la koy def kon daal jumaa ji leen taxoon a jug ñi ngi ñaan daal ngeen ñaanal ñu ba nañ ko yéenee dëgg dem ba yéen ñi fii liggéeyee sax ñu wutal leen ay waruwaay yoo xam ne ni ku wàcc doo xaarati oto bi di la yóbbu waaye ku nekk dangay am sa oto bu bopp am nañ yéene ji suñu yéene xëtul ñaawul ci wàllu googu kon ñu ngi ñaan bu baax ngeen ñaan ci am nañ ci yaakaar ndax yéen a a gën a jege barab bi nga xam ne mu fi la bi nekk jërë ngeen jëf. sëriñ Mourtala ñu ngi lay nuyu bu baax di la jot nuyoo ci kilifa yi nga jóge muy sëñ Abibu ak ñi ma àndal ñëpp ci waa ci kanam di sant bu baax itam ci jéego yi ak liggéey naam tey jii. mooy jotaay bi waaye cant gi jiitu na jotaay bi ndax ni ko waxee euh, liggéey social bi jumaa ji ci ngeen ko tàmbalee woon yàlla dogal barkeel gum barkeel moo tax mu law loolu itam noonu la baaxoo ndax naa borom liggéey bi moo njaboote fi ngeen ko yóbbu fépp kon defe naa ne bu barkeelee ba ngeen ko yóbbu fu mu mën a doon kon ba léegi mi ngi dugg ci jumaa ji génnagul jumaa ji ndax ci njabootu boroom jumaa ji rek ci lay jëm bu ngeen jógee ci jumaa ji ba nopp kon ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm te itam di boole ak cant waa Touba ci kanam yëpp ak liggéey yi ñuy def yëpp muy yoo xam ne benn mun ci woon ñàkk te ñu baree bari seen xel da ko jëloon suñu boroom taw feexe la waa Touba ci kanam ñu nekk ci mel ni murid yëpp lañ ci nekkal ñëpp war leen a jàppale war leen a bàyyi xel ni ñu nekkalee fii murid yëpp noonu ngeen nekkale ci Touba ci kanam ci murid yëpp ndax bu ñuy wax Touba murid bu ne sa xel mi ngi fi boo ñëwee Touba sa xel ci jumaa ji kon mel na benn la liggéey bi benn la yéene yi benn la jëmukaay yi benn la ndax lépp ci sëñ bi la jëm lépp njaboot ak sëñ bi la kon biñ def lu gën a sant gën leen a ñaax gën a ñaax itam mbokki taalib yi ñu gën cee jàpp bu baax a baax a baax ndax li ngeen di liggéey nit ña ñi ngi koy gis ñi ngi koy jariñoo lu am njariñ la lu mënutoon a ñàkk la lu mënutoon a ñàkk nag buñ ko tàmbalee bañ xam ne mënutoon a ñàkk ku am xel te doon as gor murit ñu jëme ko ci sa alal yaakaar muy alal Serigne Touba muy dëkkam bii ak ci njabootam war nga cee góorgóorlu bu baax kon ñu ngi soññ mbokki taalib yëpp ñu gën a jàpp ci Touba kanam bu baax a baax ñun waa daayira Moukhaddamatoul Khidma dañoo jàpp ne ñun nekkuñ ab daayira boo xam ne dañoo nekk ne ci ak peeg di am lu ñuy def waaye dañoo jàpp ne murid lu fi waaj def rek ñun la koy defal ndax fii ne mooy ndey fépp mën na sa ko wax borom liggéey bi mi ngi fi yaakaar murid yi mi ngi fi fi lañuy ñuy tàmbalee liggéey bi ba fu mën a àgg kon nag fu liggéey bi àgg ak ku ko mën a def dañuy jàpp ñun nga jàppale kon ñu ngi leen sant bu baax di gën a jox loxo di gën a ànd ak yéen ci lépp incha allah te ñaan rek suñu borom gën leen taxaw gën leen sàmm gën leen aar yokk xéewal yi murid yi ba li murid yi bëgg def ci yoon wi lépp ñu def ko ci barke sëriñ bi te jàmm sax fi mu yaatu lool ci réew mi ak réew julli yëpp dellu di leen sant bu baax a baax di leen gërëm yow sëñ Mourtala ñu berale ak cant tam sew doxinu bopp boo xam ne boo meloon ne neneen ñun danañ ci am luñ ci luñ ci yëg loo xam ne du ñu gënal kon alhamdulilah bi doxin mi mel nii ñu gën la ci sant gën laa ñaanal suñu borom gën laa sàmm gën laa dëgëral ba yan bi woyof nga àggale ko fi ñu ko bëgg a àggale yaa ngi ñu ko àndal ñëpp jërëjëf sant nañu baax